taxaw taxaw yow. parce que. ma ñuy jàll. eh dina ok. 頑張れ頑張れ頑張れ wàcc ñun dañ jaar si yoonu suuf ba ñun su toogee ngeen yëkkati ko